damay leral touti rek li jëm ci conteneur yi euh, conteneur yi manam walu aspect technique bi lay wax parce que ñom liñ bëgg wax ne pour ñuy fay par ici tante woon nañ ko fi 2 ans ça n'a ça n'a pas marché légui daw defuñ ko ren ñu bugg ko wat man ànd si si charge de poids ñu sanctionné ko ànd si bu baax baax parce que il faut ñu sauvegarder aussi nos routes il faut ñu sauvegarder leen mais nak quand même l'aspect technique n'est par ici lañuy fayé euh, la ñuy fay euh, pénalité yi loolu man mënuma si ànd parce que booy charger un camion mënoo xam ne issue devant simple bi euh, pont bi lii nga fay def pont bee lee nga fay def pont bee la nga fay def man daal li ma bëgg li raisonnable te jaar yoon mooy fam ne kon ñu bakko fa mooy di charger par poids total bu si charger de poids ñu sanctionné ko man lo dal la and lo la ne woon dina ci wax. fait liñ ñu fa bloqué moy li Ibou badian wax rek une dizaine ñoo fa nekk pour l'instant mais amna ça ça fait plus de même 30 sax parce que amna ño xamni ñu ngi charger chargé ñemewuñ dem. amna na fi ñu taxaw fi si usine bi amna ñeneen ño xamni ñu ngi taxaw fenen donc y' a plus de 30 conteneurs qui sont bloqués donc lu li Ibou Badiane wax. waaw non conteneur bu nek ci manam la wara war a fay. Non, ce qu'on fait, ça dépend. Parce qu'on nous fait 50 000, ni 60 000, même 100 000. c'est ce qui peut faire. Ce que je dis, c'est que le transporteur est Parce que le transporteur, sont lui fait. Parce que si on l'a loué, normalement, en principe. Donc, ce nous faisons, c'est qu'on appelle le transporteur. Le transporteur doit venir nous Ce qu'on veut faire, si on l'a loué, c'est un problème. Pour un temps normal, 2 000 francs, on ne pas dépassé. Et faisons 50 000, 60 000.

y transporteur est-ce que dina ñemete envoyé conteneur yi parce que dañ retardé donc yooyu ñu ngi ñaan état ñëwuñ nag pour wax xeex mbalu xuloo dañu pour état ministre bi président de la république bu doonee ne luñ toogoon la def ko techniquement nañ ko